du 2 juin bi bi ñu proposé. Mhm. Euh, waroon na ak 15 décembre bi ngeen proposé woon yéen ndax jàpp nga ne c'est une bonne date pour revoir li ñu war a xoolee parce que si 2 juin. ginnaaw ginnaaw suba la xam nga xam nga ba tey ñun li ñu li ñu proposé woon wala lu assemblée nationale proposé. oui jóge ci. ñun dañ waxuñ ne dañuy génn at bi wala waxuñ ne dañ fi def leneen dañ ne woon 15 décembre biñ ko proposé te li ñu proposé. Euh, euh, euh, dépassé nañu délai bi nga xam ne moo nekk ci conseil constitutionnel. Mhm. corps électoral bi bi bi président woote woon bu njëkk bi ba neenal ko. loolu bu dee ne ci wàllu yoon. man du ma juriste nag mais dépassé nañ ko parce que heure bi dafa waroon wax waroon fekk voté nañ dimanche bi passé. Mhm. mais voté wuñ ko teggi nañ li assemblée nationale defoon mais li mel na li assemblée nationale defoon rek la ñuy indi. mais wax ñu <laughs> leeral. alors que tey jii nit ñi juin lañ wax juin wax maanaam ko wax. mais ginnaaw suba la soriwul. c'est-à-dire assemblée nationale lu mu séentu woon ci def ko. 15 euh, euh, euh, décembre décembre. pour que ñu mun a leeral lépp. pour que ñu mun a saytu dossier ñun ñëpp. parce que nag nit ñoo xam ne dem nañ quand même def seeni i parrainage euh, lu mot un mois wala deux mois ñëw indi seen kele ñu ne kele yooyu mënuñ liir loolu tamit euh, nekkul loo xam ne xel mun na ko nangu ak fi ñu toll ci wàllu euh, xarala bu bees yi ñu yor nii warul nekk problème conseil constitutionnel ba nga xam ne ñooñu am nañ ci warugal ñeneen ak ñeneen am nañ ci warugal donc dañ jàpp ne date bi assemblée nationale woon proposé woon ci bëgg lépp dox ñu waxtaane ko bañ ko parax paraxee ndax même élection locale en quinze en quatre mois ndax lépp xaj na ci waaw man de man de man dama jàpp man dama jàpp de man Aliou mhm. en tout cas lépp loo xam ne dialogue nangu na ko mhm. doxal doxal na ko nit ñi juboo nañ ci dama ci d'accord mais bu doon man élection présidentielle wa mënul xej ci deux jours euh, ci deux mois wala ci trois mois wala ci quatre mois parce que li ñu ci war a saytu dafa bari am na xale yoo xam ne à partir de 2 juin dañuy am 18 ans. Mhm. pour bu war a bokk. parce que aussi vote. il faut ñu dugal leen ci fiche bi vote droit droit citoyen la. nit ki bu fekkente ne diggante feeg boobu amul woon euh, euh, euh, manqué na woon un mois wala deux mois pour mun a am dix huit ans am carte électeur am war a bokk ci ñiy doxal ci réewam ñoo ñit am nañ ci droit mhm. mais dafa am ñoo xam ne neuf cent mille électeurs yoo xam ne waxoon nañ ne ñooñu dañ leen war a boole ci fichier bi mais loolu yëpp est-ce que da ngay man dama jàpp na euh, quatre mois yooyu dafa tuuti. Hmm. mais nag lépp lu ñëpp d'accord même bu doon ne benn fan man du ma ci du ma ci du ma du ma ko wéet. Ah, mais mais nag ku xam élection surtout enjeu élection surtout élection présidentielle. Hmm. jàpp naa ne def ko ci deux mois wala ci trois mois préparer ko bu dee ne war nañu dugalaat ñi nga xam ne dañ leen kale woon war a dugalaat ñi nga xam ne a ah, war nañu am droit vote fii ak 2 juin. war a dugalaat neuf cent mille électeurs yoo xam ne tamit ay sénégalais lañ. Mhm. dañoo war a doxal dañ ci war a bokk man jàpp naa ne loolu dafa gàtt. d'accord ci sama gis-gis ah,